Moustapha Mbaye boobu noonu nga xam ne moom moo nekkoon responsable logistique am amul lu ma waxut ci Arouna Fall man bi ma demee ba bàyyi ndax damaa xam ne kii li muy def jubul ndax ñun sax ay ay ay collaborateur am xamul dara ci Moustapha Mbaye moomu nga xam ne moom moo nekkoon responsable logistique am bi ma fi ñëwoon récupérer oto bi bon bi kii moom mu ne ma wax dëgg fa yàlla commencé expliquer man comprendre tuma Arouna Arouna li muy dugg ñun xaw ma ko te nit bu fekkee man maay responsable logistique am xaw ma si xaw ma ci moom dara naam bi ma demee ba comprendre damaa bëgg créer suma yëfu bopp dem ci ay nitam nee na ñu jox ko ay oto muy jaay mais ndax moom nag moom nee na ma moom duma ma leble man damay jaay ndax yoruma alalu ja alalu jàmbur laa dañ may damay jaay delloo seeni i borom léegi bu ma jaayee delloo seeni i borom ma jël suma bénéfice waaw ñu dem ba saa na ci biir waxtaan maak moom comme miinante woon nañ si société bi bon mu ne ma day dem Dubaay surtout day dem uti oto mu proposé ma benn Toyota Camry mu ma ko proposé à 2 millions 800 arrivé port ma ne ko ah loolu de baax na 2 millions 800 arrivé port de baax na. waaw jéem naa ko sax wàññi mun a ma non c'est que yow damaa xam ne situation rek xam naa li ngay daj te wax dëgg faa la gis naa li la sa waay def bon wax dëgg faa nekkul lu rafet te toog aussi xam naa ne sa oto yor nga njaboot nangam ak nangam expliqué bon ma ne ko nag man wax dëgg faa la d'accord amul problème mais il faut nga dem ba ñëw ma soog a ma a joxe ndax man tamit wax dëgg faa la mënu joxe instant yi xaalis dama am ci yeneen projet yu ma nekk saa yi gis nga suma xaalis 5 millions 400 dugg na fële. bon situation yi mooy loolu moo wax a wax a wax mu ne ma daal mu fexe rek ba ma jox ko xaalis mu ne nag sa man il faut nga jàpp ci man dama lay dimbale ndax xam nga ne oto bii ma lay jaay prix bi du prix mais xam naa situation nga nekk xam naa li nga daj ko mais yow tamit il damay dem te li ma waroon dépense yëpp dama kaa yóbbante na explique ma ay détails yëpp le 17 septembre bii passé mu ne ma moom le le 18 la war a dem le 18 la war a dem la ma wax a à à 6 heures du matin ah ñu dajeel ma ne ko nag man fii saa bi yoruma liquidité ma jox ko benn sec mu defaral ma décharge boobu ba léegi su ma ko woowee daf maa filtré su ma ko woowee dugub boîte vocale sama numéro orange direct am na keneen nag ku ma ne mu ngi ci dëkk bi waaw vraiment nag man sonn naa kii jël na suma cinq millions quatre cent kii jël suma trois cent mille dama ñëw Dakar suba dem police lu mu ko jaral rek jaral na ma ko ndax man ne naa bii moom sama bakkan laaj rek na ma di jox suma xaalis ci nii wala ci ne la fal force affaire man dama ko fekk ba société am. ñu ay kayit yu leer joxoon na ma oto ba ma miite affaire yi du man rek dégg naa mot nañ plus de vingt par ndax démb procès bi la ba dañ ko jàppoon àllarba ba le ñu reporté ko. mercredi bi passé laa delluwaat bon bi ma demee avocat bi mu ne ma jarul comme yow fi nga nekk dafa sori jarul ngay sonal sa bopp di ñëw. il paraît que démb dèjà préjudice yi kese kese kese li ko manqué cent millions bariwut te il paraît que man maa ci gën a tuuti la ci li ma ci ci li ma jëloon ci xaalis dégg naa ñii ay seize ñii ay vingt millions ainsi de suite Moustapha Mbaye moom vraiment dafa ma bett trop trop trop ndax Moustapha amul lu mu ma waxut ci Arouna Arouna nangam du waxkatu dëgg kilifa day wax dëgg gauche ak droite ba pare Moustapha ñëw def ma lii bon parce que man daa mel eh, wax na lu nekk pour ma mais man dama a garaawul comme trois cent mille bari na bariwut garaaw bàyyi ma jox ko trois cent mille ma xool waaw ndika yoo moom moo gën a yées Arona Fall waaye nag billaahi wallaahi taalaahi bii moom duma ko bàyyi sama 300000 bii lu mu ko jaral jaral na ma ko dina ma ko fay ci nii wala ci le nag. waaw côté bu mu munti doon nag amul pare naa ko. bu mu munti doon pare naa ko bu dee Zahir bu dee baatin pare naa dina ma fay suma xaalis.